xalaat ko def président d'honneur te yéen ngeen bokk ci ñi waxoon ne un président de la république warul am appartenance politique wala jiite parti en tout cas ba mun xëy na jaxase état ak ak ak parti politique. un président d'honneur n'est pas à la tête d'un parti c'est le président du parti qui est à la tête d'un parti. honneur ce n'est c'est c'est bu nga xam ni à titre honorifique la c'est-à-dire il n'a pas. l'obligation d'être présent dans les réunions. est-ce que duñu delloo ci mm, mm, mm, la du démissionné personne ne l'a poussé la démission. des instances. il a démissionné des instances il n'est plus secrétaire général. maintenant tout un chacun même le marabout mën na nekk par <laughs> ci biir parti politique parce que c'est un citoyen donc il joue son rôle de citoyenneté c'est-à-dire su fekkee am na fu muy bokk ci la lay bokk Pastef ñoo ko indi au pouvoir mais mënul toog croiser les ni mooy bokkatuma ci benn parti. c'est pas ce qu'on avait di ce qu'on a dit on l'a respecté. d'accord Diori ñu avancé waaw comme ça ñu bañ taxaw foofu je pense que je suis clair. ñu bañ a taxaw foofu euh, mais euh, euh, Birame Khoudia nooy expliquer agenda parallèle yu Sonko ak Diomaye Sonko mi ngi dem ci xëy na yenn réew yi nga xam ne jàpp nañu ne foofu peut-être démocratie nekku fa Diomaye à côté di dox ci lu officiel. dem ci réew yi nga xam ne bon ce son des présidents démocratiquement j'ai pas compris nga ni Sonko dafa dem ci ay réew waaw dafa nar a dem ci réew en tant que ah, président de parti toujours hein en tant que président de parti nar a dem ci réew yoo xam ne <laughs> jàpp nañ ne démocratie amu fa euh, dama li ma bëgg a xam mooy euh, parallélisme agenda yooyu qu'est-ce que ça cache lan ngeen ci jublu en fait xam nga euh, un président de la république bien que je ne sois pas le porte-parole du gouvernement quand il se déplace il ci ginnaaw ok moom mu déplacé wu bi muy dem Touba xam nga par exemple Ousmane ko demul parce que il fallait mu toog moom. d'accord xaar ko ci kër gi moom mu dem xaar ko ci kër gi. ok c'est la même chose buy dem extérieur. maintenant su demee bu ñëwee mu accueillir ko comme ni ñu ko gisee c'est ça qui est l'officiel c'est ça qui doit se passer mënuloo déplacer un président un premier ministre ñoom ñëpp ñu dem ànd donc loolu day faciliter encore l'agenda du premier ministre en tant que chef de parti bu fekkee ni jël nañ ma ci gouvernement may doxi damay def visite officielle ak visite bi nga xam ni visite du citoyen la visite officielle bi damay dem au non du gouvernement tey bu ma doon ministre tey bu ma demee Saint-Louis gouverneur moo may accueillir ñu dem gouvernance toog fa wax fa mbiru kii woo chef de service yi mais bu fekkee damay dem ngénte euh, bu ma demee gouverneur du ñëw accueillir ma déedéet ci ngénte ba laay dem directement dem dox la may dox wax la may wax toog fa wax ba pare dellu te mun naa bañ sax dem gouvernance noonu la demee. Hmm. d'accord euh, jëwriñ euh, amuloo laaj ci agenda yooyu jomaay fii Sonko fële mel ni président jomaay xëy na dafay moytu réew yi ñu naan démocratie amu fa parce que demagul Mali euh, demagul Guinée ca Doumbouya demagul Niger. demagul feneen ak feneen foo xam ne Burkina Faso nga xam ne euh, foofu njiit ya fa nekk ñu leen ci démocratie dañoo foqati nguur mel ni dafa am parallélisme agenda boo xam ni moom la ñu seetlu ci ci ci ñoom ñaar. bon xamoo nga dëkk yooyu wala complémentarité la. xëy na kii mënul dem fii parce que kële demal ko fa. dëkk yooyu dafa nekk dëkk yoo xamante ne dañu nekk en phase de tourbillon quoi. ok tu sécurité amu fa à 100 pour cent. donc dem fa dul lu yomb. pour un président. <laughs> pour un président dafa nekk ci benn phase boo xamante ne phase bu particulier la quoi. Mm-hmm. donc euh, moo tax ma xalaat ni peut-être que dina demander beaucoup plus de prudence. ak d'organisation pour mën fa pour euh, pour mën fa dem. <coughs> et puis ce que je vois que ni xam nga euh, dafa dafa dafa. au la de nationalisme bi. Mm. mais dafa dañu lancé woon benn projet panafricanisme. tu vois. Mm-hmm. léegi projet panafricanisme boobu. comprendre que ñoom non simplement que dañu am obligation gouverner le Sénégal jinne dagg boobu njaam gi bi nga xamante ni moo fi nekk. Mm-hmm. comprendre fexeel ba yëwénal dund Sénégalais yi ba pare dox projet panafricanisme bi. Mm-hmm. je pense que chantier yooyu moom lañ njëkk teg seen kanam. te chantier yooyu panafricanisme bi bu fekkee ni da ko bëgg doxal. Euh, dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo wër. Mhm. parce que booy xool déplacement Diomaye yi c'est très logique. Mhm. mooy sunu dëkkandoo yi nga xamante ni dañu am frontière. ñooñu la njëkk seeti. parce que yow tey jii bu fekkee ni da nga ñëw ci koñ. Mhm. war a dem dox jàmm seeti ay dëkkandoo mais ñi nga ñi nga dendal kër ngay ngay njëkk dugg seen kër yi. <laughs> boo boo tobee ñi nga dendal kër. cela veut dire que dafay mel ni da nga leen a xeeb. wala jox nawloo woo leen. te nit ki bëggul ko ko xeeb Gambie am nañ lu ñu sekk ak moom Mali am nañ lu ñu sekk ak moom Guinée Conakry am nañ lu ñu sekk ak moom Guinée Bissau am nañ lu ñu sekk ak moom ñooñu ñëpp dañu am frontière ñun ñooy suñuy dëkkandoo donc pour man première phase bi ñooñu la te def na ko léegi nag deuxième phase bi après on va voir lan mooy seen calendrier. ok tu vois mais pays yi nga xamante ni dañu nekk ay pays yi nga xam dañu leen di tuddee ay pays putschistes comme ni ko mm. européens yi di waxee. Mm. parce que pays yooyu démocratie bi ñuy wax. Mm-hmm. yàgg na fa. ñuy dem ay élection te yóbbu ci ba pare wëlbatiku rébellion bi dugg fa nangu réew mi yépp ñaare sax président yi fan ne ñooy bëgg a yokk seeni mandat di def ay euh, ay tripatouillage euh, mhm. et puis par rapport à ça d'ailleurs mhm. su fekkee ni le président Ousmane Sonko mhm. déplacé wu nag parce que quand je dis le président Ousmane Sonko c'est le président du parti su ma waxee président Ousmane Sonko rek xam leen ni parti bi laay wax donc le président Ousmane Sonko bu déplacé woo dem ci réew yooyu nga xam dafa am jafe-jafe. Mhm. mais am na lu bari lu mu fa mën a lijjanti politiquement. Mhm. ak waxtaan. Mhm. ak fexe ba kii bëgg yokk par exemple mu waxtaan ak moom attention mën nañu jaare nii dajale parti ya lu bari mun na fa am ci règlement parce que nous sommes wax nga que c'est extrêmement important. nous sommes euh, nous demandons nous réclamons du panafricanisme mmh. c'est-à-dire nous voulons que l'Afrique soit unie mmh. dans cette histoire-là moom il est de la révolution citoyenne mmh. Mm-hmm. léegi nag parce que ñu bari dañ doon xaar alternance bi ñu ngi waaye ñii fu ñu jëm mm-hmm. ñii ñu ngi leen di tëj ñu ngi leen di gund xatal mais fan lañ jëm est-ce que lii dinañ ko réussir mm-hmm. parce que ndam li ñu am ndamal Afrique la maintenant wax nga ko c'est très important les déplacements officiels du président de la République nañu dem dans le cadre normal maintenant yeneen cadre yi pour régler ko Ousmane Sonko en tant que chef de parti mën na fa dem waxtaan surtout bu dee dem mu ànd ak ñi nga xam ne nekkuñ sax ci gouvernement bi. kon loolu bokk na ci li leen fa yóbbu fexe xëy na. si si si solution ci situation yooyu réew yi nekk. yooyu yëpp parce que réew yu bëri militaires yi fa toog effectivement ci yooyu. Mhm. dañu waxoon ne dañuy organiser ay élections dans les plus brefs délais. Ah. fu mel ni Mali par exemple les langues commencent à se délier parce que Goïta mi ngi mel ni ku bëgg a ne faax toog au Burkina aussi les mêmes bruits euh, euh, Guinée moom kenn waxaale wu ko Doumbouya fi mu ne sax nee na daanaka ci répression gu métti la nekk ak son opposition et sa société civile est-ce que tànk yooyu la fa Ousmane ko nar a doxee. est-ce que euh, même même opposition boobu parfois ñoom ñu binduñu. ok pour ñu recevoir leen xam nga léegi bu ñu bindee pour ñu recevoir leen il est normal que ñun ñu faire un déplacement. Okay. parce que Ousmane Sonko est euh, vu aujourd'hui comme un exemple. d'accord c'est-à-dire loolu bu ñëwee wax ak ñoom mën na am impact positif mën na indi aussi diisoo ci seen biir. Mm-hmm. mën na indi jàmm mën na indi lu nekk. te loolu c'est révolutionnaire pour l'Afrique. Mmh. parce que ñun li ñu bëgg yëpp c'est pas que Sénégal nekk ci jàmm. boo amee jàmm ci sa ay dëkkandoo nekk ci problème loolu war nga def tout pour que sa dëkkandoo yi am jàmm pour ngeen ensemble sauvons l'Afrique mos naa ko wax. Mm. fexe ba Afrique nekk benn di doorandoo di xàccandoo bu ko defee ñu mën a am un développement harmonieux. Mm-hmm. parce que mënuñu nekk biir mu am ay problème yu nga xam ni ñu ngi ñu yor ba pare ñu bëgg développé wu. Mm-hmm. foo gisee rébellion bi bu progressé dëgg-dëgg mën na dugg Sénégal indi ay problème ñu tal jàmm te ñun li ñu bëgg jàmm am nañ ko euh, mais mënuñu ko am à cent pour cent. tant que suñu ay voisins amuñu jàmm. Mhm. c'est extrêmement important. ok euh, mm. alors ñu ñëw léegi ci nomination yi nga xam ne seetlu nañu ko jamono yi moo xam gannaaw conseil des ministre surtout ñaari fi mujjee am ak yeneen mooy direction générale yi ak euh, fi nga xam ne moom mooy gouvernement bi gis nañu ni am na ñenn ci fi ñu dugg euh, ci gouvernement bi ak xëy na ci yenn direction générale yi mm. mais des na. et commencé nañu dégg ay euh, ñaxtu yu sew venant de d'alliés mais aussi ñoo xam ne sax ñoo ngi ci biir parti bi di wax ne yëf yi dafa war a gën a gaaw ba ñu ci bëri sax di wax ne appel à candidature nekkatul d'actualité dañu war xool les compétences au sein du parti ak au sein de la coalition bi nga xam ne moom moo porté woon seen candidat Bassirou Diomaye Faye à l'élection appréciation ban nga def ci nomination yi ak est-ce que d'accord nga ak ñoo ñu di wax ne dafa yéex dañu war a gaaw caser ñi nga xam ne ñoo nekkoon euh, ci xeex bi nekkoon ci lacrymogène yi nekkoon ci prison yi bon je ne suis pas particulièrement d'accord avec ça. ok euh, man yàgg naa wax sama position par rapport à tout ça avant ñuy egg euh, pouvoir. Mhm. dama yàgg wax ni xeex bi ñuy xeex plateau yi ñuy dem euh, dañ ko jàpp comme un devoir citoyen. ok maanaam dafa mel na jaamu yàlla la am na ku ma ko wax léegi et puis loolu laa gëm. Mhm. li nga xam ne yàlla tudd na ci biram xujaloo mais man sax waruma ko wuti. Mhm. c'est-à-dire ma war a fekk si. suñu boroom mën na dem ba décider ni Birame ko Diomaye Bassirou Diomaye Faye li ko fekk ci mais mosu ko wut da ko fekk si ndax dafa tegu woon ci yoon tegu ci mu war a tegu mm-hmm. bon principe ak valeur loolu du ma bett bu fekkee jógee ni ci allié allié yi parce que allié yi amuñu suñu ay principe ak valeurs yi dañu indaane yeneen principe ak yeneen valeur mais ñun Pastef suñu principe ak suñu valeur mais le don de soi pour la patrie en l'a dit pourquoi voudra-t-on que ñu gaawantu wala ñu jox nit poste démb interpellé nañ ma ci ñu ni ma diw jox